asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 16 septembre 2021 dañuy ñëw kin ci yëglikaay suñu làmb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi nag tey xëtamu njëkk lëm ca xëy fesal mooy diggante Balla Gaye numéro 2 ak Boy Niang soog ba nag yëglikaay bi na combat ba mois d' avril la ñu ko jàppoon 2022 waaye daa mel ni ki nag léegi moom wàcc nañ ko ba mois de mars 2022 le 27 mars daal la ñu suñu làmb xëy tey xamal ne boobu komba léegi ca lañ ko fas yéene jàpp ngir ñaari mbër ya ñu mën a bëre nag yëglikaay ba yemu ca continue ba tey ci gaston sombeeg mi nga xam ne moo tëg jooju làmp mu mel ni am na keneen koo xam ne wala boog rakki Balla gay ji di Sa Thiès Gaston koy wural ay adversaire yoo xam ne wala ab adversaire boo xam ne war na ko wana boole ak moom bokk na ca nag Malick Niang ma ngeen xam ak Yékini Junior wala Garga mboose ne na daal ñetti ñii moom ñu ngi ci tabletu gar Gaston Mbengue mu ngay xool kan la ciy jël boole ko ak ka nga xam ne moo di Sa Thiès moom Gaston yemu ca tamit mu ngay togg loo xam ne daal ab kalaf lay doonati mu mel ni ki nag juróom-ñetti mbër daal yoo xam ne fi mu nekk nii daal ñu nga ca mbir ya di ko lijjante ngir nag loo xam ne nii daal fas na ko yéene toggaat andil ko amateur yi te nag maanaam loolu la bu sottee moom boo bëggee dégg dëgg ay mbër yu mag a mag ñoo ko nar a seq yëglekaay bi moo xëy tey dinu jox boobu information wala yooyu xibaar beneen combat boo xam ne moom taxaw na bu yàgg yàgg ñu war ko bëri nag le 24 octobre yëglekaay bi ne soo bëggee dégg dëgg daal diggante fils de balle ak général Malick yëglekaay bi ne daal maanaam combat de feu moom la ka nag mooy Assane Ndiaye bool production kenn ñeneen ñoo xam ne nii moom ren defuñu feu parce que nag la ñu am ci ay ndam ak ay defet moom la yëglekaay bi xëy toppal ñu ko muy waa jàmm gën si kàmbaaw mu mel ni kii nag boo bëggee dégg dëgg ci victoire quatre la ñu ca am bu dee ay défaite moom yëglikaay bi ne na bu bëggee dégg-dëgg daal maanaam sept défaite la ñu am yëglikaay ba xëy na tey toppal ñu ko dinu ko wax mel ni ki nag ka nga xam ne moo di Ndik Fall di seen président moom lam nu xëy xamal daal maanaam ne na li ñu bëgg daal mooy at yi nu jëm wala saison bii nu jëm sax maanaam la nga xam ne moo di suñu làmb door ba moom ñu liggéey ba nangu ko ci kaay baax ba nga xam ne moom la ñu ko jox ren décret bu nga xam ne moo nekk ca Tëngéej keneen koo xam ne ni moom la muy waajal moom moo di wàllum MMA ba muy bombardier bu ko doon waaj daal bu yeboo fi mu nekk nii mu wàjji ndax nag yëglikaay ba xëy nañu xamal ne daal Jérôme la baneer daa mel ni dafa blessé te blessure am booba nag tax nañu annulé combat MMA ba nga xam ne mu waroon dox ci diggante Bombardier ak tubaab bi nga xam ne moom lañ naan seroom la Banner yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy tey dina ko wax mel ni ki daal kon loolu moom moo fi ñëwoon tey ci yëglikaay yi